su kaa daal di nuyu naa la. mbaa yaa ngi am jàmm. sa vax lan la ak tagal gi tey. Euh, bii ëpp na. Mbeng saa Ndiogu laa tudde. saa Ndiogu Mbeng ay doom day ngeen nag. kol crédit kol ñaam. <laughs> maa ngi nuyu Souka Mbaye mm-hmm. Omar sama bun xatam maa ngi koy ziar bu baax Alaaji Sa maa ngi koy nuyu di nuyu Fatou mm-hmm. di nuyu euh, waa Solution TV ak waa Walfadjri yéen ñëpp mm-hmm. di wax ne tey moom suukaru koor bi dund na dëgg neex yàlla moo ma jaaxal. Mm, mm, mm. suukaru koor gi rek sa kii bi de. waaw fii sa caméra. laaya ma déranger. Euh, euh. ma toog fi mu yóbbu ma fee. Ah, ah. bëgg ma ba dof fu ma dem mu topp ma. tey kon ñu ne tey ñoo dem jëli kon li nga xam ne moom moo di temple indiation. ñëwal école de dooda nan école des jeunes mariés. jeune marié. tey lu neex lu ñuy def. lu ñu saf. Ah. maam Ndiaye Sabo sama mag di ngi lay nuyu bu baax a baax. maam Ndiaye Sabo man. waaw tàllalal. <laughs> école des jeunes mariés. tey nag lan nga indi tey. tey nga ni Mame Ndiaye Savon moom ngay nuyu. waaw Mame Ndiaye Savon maa ngi koy nuyu baax borom Dubaay. am ah. abbaay ci man borom daal yi ci man borom sa yi ci man. dëgg neexul ku baax borom Pikine. waaw koy Mame Ndiaye Savon suñu mag ji. xam naa nañ ko dalal fii incha allah lu yàggul dara. Ah, nañ ko xaar dëgg neexul kon su Kambay. ci lan. lan ci bëri bi bu bees tax ak solution TV xale yi dañuy fële fu ne à tout moment mën nañu yëngal réew mi. man bëgg naa lii de ñëwal. kon su yi mbay tey euh, suñu rubrique école des jeunes mariés tey dañuy waxtaanee goro yi nga xam ne dañuy euh, maanaam mais yi nga xam ne dañuy laaj sukkaru koor seen goro yi dem sax bay jéem a def mel ni affaire yi force la. waaw ah. dañ dem seetaan élément bi su kaa te ñëwaat. non loolu dafa warul rek parce que yéen moom on dirait gàtt xel la parce que am xamoo nit loo xamante si boo yow sa ko bu ko ah, boo ko defee tamit garaawul boo ko mënee waruñ ko laaj nit parce que du force te su boobaa yow amoo ci yàlla nit ki boo koy laaj dee ko laaj ci kaw li mu lay jox mu am ko te na la ko jox ci kaw xol bu sedd parce que bu la joxee loo xamante ne nii xolam seddu ci même yow dañ ciy am bàkkaar kon du force sa doom boo ko bëggee jàppale ci sëy bul teg sa goro loo xam ne mënu ko parce que yow ba ngay fas koor suukaru koor taxu ko te amul ci benn diine boo xam ne da nga fay dem mu fasal la ne koor bu jotee force la nga yóbbu suukaru koor amul fu ñu ko bind loolu moom waroon na suukaru koor du forcé man amaguma jëkkër sax man du ma kaas waaw man aw ma njëgu suukaru koor bu ma joxe man sama yaay lañ war a jox doo laaj sa goro mu jox non sama yaay sa chéri mu jox suukaru koor déedéet man sama yaay la ñuy jox ñoom lañ dul jox non man su ma amee danaa ko jox mais su ma amul du ma ko jox meeru kooba yi daru ñoo jox dara suñu am jël ku warul jàmm doo ko jox jàmm pour bu nekkee maire bu baax bu correct waaw macha allah ah kooku moom da nga koy teral mhm. macha allah su kaa mbay ñoo ko déggandoo nee na moom meeru koo bay du leen jox <laughs> waaye itam dafa am ba am lu am uh-huh. mooy dafa dafa nekk loo xam ne dafa rafetul parce que ki nga xam ne sa doom moo ko takk andi ko si kër gi mu koy seel sëy bu rafet sëy bu mucc ayib uh-huh. yaakaar naa su kaa mbay bu ñëwee li la war rek mooy tette ko ni sa doom uh-huh. waroo koo teg yenn stress yi waroo koo forcer yenn yi ndax suukaru koor na du force danga koy mën nga def ko munoo ko nga bañ koo def te loo gis suuka sukaa mbay li ci dàq mooy yéene mais boo demee nit ki ah gisaguma sama suukaru boo de sama suukaru koor kañ nga ma jox sama suukaru koor mhm. tey Omar bu nekkee sama euh, sama rakk frère wala sama magu frère Faatu nekk soxnaam maanaam Faatu nekk sama wujju peccor go mhm. mu toog di di di wax yenn wax yoo xam naan ah Faatu de moom indil na ma suukaru koor yow nag mhm. looy xaar yooyu boo koy wax sa sa sa sa sa jabaru doom day mel nii da nga koy jéem a vexé parce que dinga dina dem ba day am kersa goo xam ne sax pour mu gis la sax moom ci la li muy li muy li muy kii yëpp mooy naa jéem a def li ñetti suukaru koor andil ko mhm. parce sama morom mhm. kat diw andil na ko sama gujju pétrole gu kii andil na ko kon man tam naa dem léegi na loolu boo ko forcé ndaw si yaa ngi koy poussé si loo xam ne di nga dem ba sa doom ngay yàqal mhm. parce que boo ko laajee amul keneen ku muy laaj borom këram lay dem laaj mooy waral andi problème yu bëri ci ci ci suukaru koor da ngay dem naan sa borom kër jox ma jox ma jox ma bu fekkee koo xam ne su Sukambay yorul nga teg ko fitna teg ko coono kan moo ko teg moom yaayam si boppam moo ko teg kon lépp loo xam ne yaa ngi koy def doomu jaamur bul foo ne nit ki nga koy def di ko jéem a wàññi de mais sa doom ngay teg coono parce que naan jox ma jox ma jox ma ñoom ñaar mun nañ dem sax ba loolu andi ba réeroo am ci mm-hmm. parce que bu fekkee nit ngay laaj à chaque fois mun naan la awma awma am na nooy insister yéen ñaar mun ngeen ci am ay problème mun ngeen cee jote mm-hmm. mais ba tey dama naan jéeg ji nga xam ne ñu ngi leen koy forcer buñ def lu ñu mënul jox ma jox ma boo gis xamal ne boo paree boo ko joxee mu xeeb ko ndax ki toog naan la diw de jox na ma looy xaar kooku mu ngi xaar tey nga andi lu ëpp la faatu andi mhm. tey bu ma ñëwee andi ko ab pañe faatu jox ko xaalis andi ko pañe la faatu andi moo ëpp li ma andi tey bu ma ko andilee du gis teraange kon du jar bu mu jar yenn yi bu mu jar ñuy def loo xam ne mënuñ ko mm. danga gis jég boo xam ne ndeysaan yorul takkul langur bu tegg ab nattam sax day lu muy def li muy njëkk xalaat sama njëkkee sama gore su ma leen joxul nan lay demee mu jaroo ko lépp lu mu am mu mu def ko te ëllëg après yow yaay subir conséquences parce que da ngay def loo xam ne man tey lu may def dama naan su ma ko defee naa ci am ngërëmal yàlla waaye bu waaye tamit ki nga koy defal mu gërëm la ci sukaa dafa neex nga jox nit mu ne la ah diw de na ma diw de defal na ma dafa neex mais doo ci jëlee loolu li nga ciy am mooy xas naan diw de xool lam ma jox ni mu dawee kii moo ñàkk kii jéeg bu ñàkk ni ñu koy waxee sax jéeg bu ñàkk classe bi jéeg bu ñàkk personnalité bi di la jéem a tëkkaleeg sa wujju peccor go dañuy dem sax ba la jéem a jaxase sa wujju parce que yooyu bu amee rek yow su sa jëmu bopp di nga jéem a xalaat naan est-ce que diw lii lii ak lii wala diw jëkkër mi ngi koy jox lii ak lii yow da ngay dem sa ba sa jëm bopp da ngay dem ba xeeb sa borom kër da ngay dem ba xeeb ko des fois ngeen toog naan ko diw de la mu jox jabaram lu tax mënoo ma koo jox ma jox samay goro yi mu nekk loo xam ne dafa ñaaw ci maire bu koy def gis nga maire yi nañoo xam ne sëy nañ seen sëy ba pare buñ mënta dimbale jéggi seen sëy ngelawaay ñu leen yàqal ndax dafa métti si nga ñëw nekk si néeg sa ñu lay bundu xataan di la forcer yéen yoo xam ne du forcer te suukaru koor su kaa mbay ku ko mën na ko def boo ko mënul bul forcer te bul def loo xam ne ëllëg yow yaay toog di sa néeg di ko jooy kon jeeg ji bu leen kenn forcer suukaru koor ba ngeen dem di ko leb waaye ngeen dem di forcer seen borom kër ñu leen koy jox ngeen koy jox koo xam ne amaana sax jaru ko du force boo ko mënee def boo ko mënul baal du dëgg ay ca Omar hmm, xam ne teraanga boo demee ba koy laaj rek moom ma toog hmm? maanaam boo ba egg ci nii defal ma teraanga ji hmm. pour man nag teraanga jooju moom ma toog nekkatul teraanga sax nag te yenn saa yi wolof day faral di wax uh, wax ju am solo maanaam uh, kii ngay xeebal li mu la jox wala nga naan dafa nay joxuma yow da nga war a laaj lan laa ko defal ba noppi yow lan lan laa ko defal lan laa ko mës a defal balaa nga naan diw mi dafa nay wala teraanga ji moo doon defal defal yow loo ko defal loolu boo ko laajee ci sa xel pour yow balaa ngay war nga ko xoolaat parce que li naan loxoy kajoor day weesaloo te teraanga ñaar la du rekk li ñuy joxe mais jàmm ju bari sax teraanga la man boo ma ko may may nga ma teraanga mais bu dee koo xam ne depuis ngeen euh, di ànd wala ngeen bokk mosoo ko may jàmm mosoo ko may teraanga gàcceem nga bëgg. kooku tey jii koor mënul tax tey jii muy def hypocrisie pour ñëw bégal la parce que li ko jiitu seen diggante dafa neexul woon kon kooku mën nga bañ a xaar ci moom lu bari. Mhm. am ñoo xam nag dala koy laaj pour tiñal la ndaxte xam na ni mënoo ko. maanaam li lay laaj xam na ni yow mënoo ko léegi ñu ne nan ko ko laaj pour tiiñal ko wala ñu def wàlli bañe fexe ba di di mën a joxe te ñu xam ne li didi di joxe. saa euh, faatuwu jëm wala peccor gom mënu ko léegi dañuy dugal faatu ci benn situation mooy diw joxe na joxewuma mm-hmm. léegi bu doon yam rek danoo yam rek ci teraanga ji joxe na ko wala joxewu ko mais dañ ciy teg ay kàddu mm-hmm. ah yow de nii yow de nii yow de nii mooy waxi jigéen yooyu di leble ak di fay bor ci ay kàddu mm-hmm. waxu yóbbante yooyu nag yooyu nag mooy dem ba tas kër te li gën a yéeme ci ni ko jigéen ñu bari di defee jëm ci mbiru suukaru koor ak ñoomin seen mooy dañuy dem ba jàpp ni obligation la maanaam obligation lii lu la war la lii da nga war a def te am na def-def yoo xam ne tey jii ñi ngi koy defal lu mu bari bari du nga ko gis mooy waykat bi li mu naan ku la bëgg ba bëgg la loo ko mënti def du ko gis ndax mbëggal ga lay xool kooku dalaa bëgg moom boo ko defalee baax na boo ko defalul baax na dalaa sopp te yàlla tax li ne ku la bañ ba bañ la nag loo ko mënti defal du ko gis ndax mbañal ga lay xool maanaam yow mun nga jublu ci ni kii tey ma teral ko nag te yow li nga koy teralee moom gisu ko parce que leen naan du li nga ko jox mais yow mi ko jox la comprendre nga may lii te ab ngërëm kenn du ko jënd li ëpp nag ci jigéen ñi sëy li leen di indil coono yooyu mooy dañuy jënd ngërëm ngërëm li muy liggéey la maanaam ci jukkoo ci doxalin ci sëy ba sa digganteeg ñi nga nekkal ba bis ñëw ñu lii la mais bu dee ngërëm loo xam ne yow da nga koy jënd loolu xeetu corruption la rek. Mm-hmm. ñi ngi lay gërëm parce que da joxe ñi ngi lay gërëm li mais ba tey ji tagguñu la ci jikko. tagguñu la ci doxalin bu dee nag dañ lay euh, tagg parce que li ngay joxe moo tax bis boo ñàkkee ñu xas la. Mm-hmm. kon daf ci am loo xam ne aada la. rafetal la ci ay diggante fi leen ko fekk fi leen koy bàyyi ñi ko mën def buñ ko mënee def baax na mais def ju du rek ci sax mooy yi wala xaalis bi wala or yi wala yooyu bi ñuy wax suukaru koor lan moo ko taxoon a jug te te ren la gën a dagande ren de dama jàpp ni suukar ku ñu jox suukar ci réew mi ka la ko jox war nga ko tàcc même bu dee kilo suukar ndax suukar amul ci dëkk bi. dafa manqué kon tey jii bu ñu ko yemale woon rek ci forme bi maanaam mi ngi mel ne ay eh, reeru tam xarit yooyu yooyu question valeur bi ngay joxe yooyu dañ ko def pour nit ñi mën a dugalante mën a saafalam parce que ni ay nit bu dee seq teraanga dañuy bëggante. Mhm. teraanga dafa neex maanaam nit bett la defal teraanga dafa neex. Mhm. mais nag yow boo demee ba jàpp ni teraanga jooju lu war la da la ko war a defal far force bu yàggee baa baadoolo ngay doon. Mhm. loolu nag des fois moom mooy tas diggante yenn saa yi muy yëngal sëy yi. mais li may faral di wax rek ku bëggul bëggul loo ko mënti defal du ko gis. waaw. bilaay waaw xam nga mbiru suukaru koor. tur bi buñ ci yemoon rek jafe-jafe du am euh, waaye dañ koo génn génn nañ ci wàllu suukar parce que ki lay wax <laughs> biñ ne suukaru koor lu symbolique rek la quoi maanaam waxuñu leneen maanaam lu symbolique rek maanaam euh, gis nañ ni koor jot na nga yëkkati suukar dem joxe loolu bi nga koy def da ngay xam ne liikat lu ñuy def la bon te yàlla rek tax quoi maanaam nekkul lu rëy lu ñuy laaj léegi nag nga gis ni nit ñi jóge nañ foofu dañuy boole ci suukaru koor ay neer ay kii looy ñawoo yu yëpp ñu dajale ko dem yóbbul la ko teg valise saa yi ki koy def mi ngi bëgg a keneen koo xam ni munu ko parce que jigéen ñi par yenn loolu mooy seen problème mhm. maanaam dañuy bëgg di dëggate seen moroomu jigéen bëgg fu ñu leen ko defalee nga xam ni ëllëg si biir kooku tamit bu demee ci yenn place yi wax ko fa kii de li may defal nii ak nii ak nii maanaam noonu la koy fayee nga xam ne dañ koy wax ci foo xamante ni fii kat di di ak euh, euh, faatu ñu ngi wujj ñi wujj mën nañu wujj bañ a wujje sax mais ku ci ne da war naa defal sukaa mm-hmm. di di ñëw pour écraser ki nga xam ne mooy faatu mën na ko mu dexe loo xam ni leer na ko ni faatu du ko def comprend wa illaa bu ko faatu di defit day dem lebi ji ba nga xamante ni bi xamut li mu leb fu mu koy fayee pour jéem a def après yooyu yëpp day indi ay problème mais bu ñu ko yemale woon ci ni ñu ko tuddee muy suukaru koor problème du am mais dañoo génn ci cadre suukaru koor nit ñi dañoo defatut te yàlla tax dañuy def ci kaw def dara dangay gis nit koo xamante ni kii day def leen lenn mais leen rek la ci jublu muy na nit ñi gis li mu def ngistal rek mooy li nga xamante ni bi moom la jublu te loolu amut sens euh, dama jàpp ni euh, mbir moo xamante ni bi yow yaa ngi koy def ki nga ko koy defal danga nga ko war a defal koo war a defal ngay defal ki nga war a defal nag yéen ñaar rek doy na ci yéen ñaar ñu daal di yëg yu mel nii nag bu amee mhm. comme ñu jublu ci koor ak yooyu loolu moo sonal borom kër yu bari parce que mhm. ay jafe-jafe dafa am fii mënuma faa ñàkk bañ a dem fii mënuma faa ñàkk bañ a te loolu yépp ñu teggil la kii baa ngi ñëw xale yi war nañu am lii war nañ def lii julli gi lii et cetera maanaam tegalaatal la affaire yoo xam ne affaire yu extra man dama ne ñu duggee ci koor rek jubluwaat nañ ci compétition bi tey ñu dee. Mhm. parce que koor kor yi non. koor yi dañuy koor. après kor yi ñu ne tëbëskee ngoog ñu war a daw ci xar yeeg yooyu ñu ne waat li wëg li maanaam saa yu ñu egsee rek maanaam boo rombee gàmm da ngay xaw a féex ne alhamdulilah tuuti benn bat naa koor bu duggee rek démarré waat na donc vraiment compétition bi dafa mel ni man bu ñu nee koor rek soufflé nañ priip aja gaa yi déparati nañ donc <laughs> dafa nekk loo xamante ni nit ñi nañ delloo si seen xel te xam ne ki jël kulëb suukaram ñëw jox la ko bul gis suukar si mais gisal geste bi le fait que nga ne ci xelam ba mu ñëw pour jox la ko loolu moo ëpp doole loolu mënoo koo jënd mhm. donc il faut que nit ñi tamit xam loolu macha allah teraanga jarul xeeb ku la jox teraanga rek am na ku mu tëb jox la ko waaw te kooku la ko gënoon mhm. yaay ku la yëg a kay def mm-hmm. Fatou waaw am na solo di di amati na solo sax li nga indi suukaru koor te temps bi fi nga ko indee jamonoom la ndax ndaxte nag euh, saa wax na ko maanaam course la boo xam ne psychologiquement mu ngi ci bopp góor ñi mu ngi ci bopp bépp jéeg buy sëy ba ci jànq ji nga xam ne sax ndeysaan ay ay faar la ñu yor bëgg a bëgg a dugg ñu ngi sax ñu ngi sax ñu ñu ngi maanaam ñu ngi ci defante sax ak jéeg ba ca kër ga te ñu ndax hmm. dañ naan naa def pour bégal sa ba goro ah jënd dañuy jënd sax bay jënd ay gane laa jënd ay brodé jënd lu nekk pour lan ay seenu or ah dañ koy def léegi ci ci suukaru koor yi ah si si si si si yëpp maanaam ah, lépp lépp la ñuy teg loo xamante ne nii sax ci xaw nga ko doon séentu mais léegi ci dugg weerum koor te weeru cor bu ñu ko waxee defe naa ne weeru jaamu yàlla la waa ak yërmande maanaam eh, weer boobu noonu pour man nit waru faa def yëfu yëfi naa fekk yooyu yëfu gis leen ma mm-hmm. pour man amu fa place lan moo fa am place mooy honnêteté sincère di xool lépp li nga xamante ne yaa ngi koy def sa diggante ak sa borom ndaxte nag bu fekkente ne tey damay jënd ay takkaay di jënd ay affaires yoo xam ne damay bëgg um, uh, ni ko ni nga ko waxee léegi mooy que ne damay jéem a fàdd kama nekkal mm-hmm. sama wuju peccargo ki nga xam ne dooleem amul doole maanaam man ma am doole di ko wan kene man sama poids nii la toll man maa la mën ci lii maanaam jox say goro say goro tam nekk ñoo xam ne léeg-léeg ñenn ñi dañuy xaw a di foofu wala dañuy nekk ay ràmbaaj yoo xam ne dañuy toog ah waaw tabaarakalla macha allah sama goro ji ba nga ñëw ba tey kenn jooyul suukaru koor manqué wul xorom manqué wul nangam nangam manqué wul yow de bokk ak nangam dañuy dem sax bay gaarwaale ci loo xam ne jàmm yàlla moom moo fa waroon a nekk maanaam jéeg ñi nañu muus nañu bàyyi maanaam ñu di leen manipuler. après saa yi kii bi day diviser pour mieux régner. pour voilà voilà ne affaire yi kii mu nekk ci diggante bi affaire am di dox. voilà ngeen di concurrence ci moom. voilà voilà surtout surtout maire yi kon kon kon léegi jigéen ñooñu ñoo war a yeewu xam ne weeru koor jaamu yàlla la boo yoree sa paquetu suukar bul am complexe jox ko sa goro boo amee sa paquet suukar bu am sa jox ko sa goro sa njëkkee waa ndax jàmm moom ma ëpp foofu ma ëpp foofu tey toggal sa goro sax lu neex muy lekk di ko toppatoo di ko nabb nabbe loolu ak di ko wax wax ju neex lan moo dàq loolu kon goro yi nañu dimbale seen goro yu jigéen yi ci biir kër yi dimbale aussi seen doom yi ndax loolu ñuy laaj seeni i borom kër ñi di ci xulu am na ñoo xam ne dañuy dem ba tas ci sax mhm. ndax amuñu ko te ñu ngi koy laaj seen borom kër seen borom kër di mero ak ñoom ci kaw lal bi ay mer yu sew yoo xam ne mhm. yow mi yaay guddi yooyu. waaw waxu guddi yooyu maanaam yow mi yaay yaa nga xañ sa doom yaa nga xañ sa doom stabilité dem ba guddi naa ko suukaru koor ma la doon wax pour voilà moom nag mu naan la ngun ngun ngun ngun ngun ngun waaw man mii arrivé na ma ma naan waaw sama sama suukaru koor sama sama suukaru koor yooyu noonu baaxul ci sëy yi mère yi nañu dimbale xale jigéen yi dimbale seeni doom pour sëy yi gën a am solo waaw wax ju sew day rey day rey góor am na benn am na benn xale bu jigéen bu nekk ci TikTok bi jajaa dama ko eh, dama ko gis keroog mu tëdd ci suuf nee na jëkkër ji na ko jox sukkaru koor un million mari de vipère la tuddee jëkkër ji mari de vipère nee ko mari de vipère jox un million dafa war a jënd suukar ndax ñoom nee na ay goro de vipère am yi ñoom it ngi koy laaj ay goro <laughs> na mari de vipère ak goro de vipère yi nee ñu ngi koy laaj gis nga euh, gis nga Didi lu dul jàmm-jàmm ko gën gis nga tey buñ la mayee jàmm ci kër gi loo am yéene ko mm-hmm. ñaq gi ngay ñaq rek di togg ko yàq rek bu eh, gis nga avant ndogu di jot yaa ngi daw yaa ngi kii pour ndogu bu jotee nga mën leen a jox ñu lekk boo dee wax naa sama borom kër indil ma lii indil ma lii indil ma lii du du chaque jour yaa ngi ko gis mu def nii Mm-hmm. sëngeem jaaxle mu ngi def nii boobu mi ngi xalaat loo xam ne li ma war te te te gis nga koor dafa gis nga ko ko ba pare koor ba pare koor dafa bari frais gis nga koor dafa bari frais yaa ngi bëgg lu sa jëkkër lu sa jëkkër lu yaa ngi xool li sa bëgg sa jëkkër bëgg nga di ko def nga naan xaaral ma dop ma toppatoo ko nii imagine nga war a toppatoo yaay yaay ji imagine nga war a def noonu te yoroo ko mm. nan ngay def nan leen nan lu may jàmm te may jàmm tamit ñi nga xam ne moom moo di ñiy sëy mhm. gis nga am na ñoo xam ne li lu dul li ma naan lu dul jàmm jàmm ko gën rek mooy loolu may bu ko mooy jàmm mu may la jàmm te di mu am di leen la ko yéene dëgg la macha allah Soxna Mbaye rafet na kon nag jéeg yi nga xam ne yéen a nekk ci stress jamono ji di xalaat nan ngeen def ba jox seen i ay goro suukaru koor génn leen ci li ngeen ne boo ngeen ko amee def leen ko bu ngeen ko am bu leen ko kenn forcé di sa yan wuñu amul da yi mm. nga daa am loo xam ne pour man nit ki bu ko demee bu dund dund 60 ans 70 ans nga mën a am ay doom ba doom yi mën a takk ay soxna nga mën a am ay sët gis leen mm-hmm. pour man réussite mën ta weesu loolu santal yàlla parce que am na ñu amul loolu waaw léegi yow après am na yoo xam ne waratoo ci ñaaw mm-hmm. Mm-hmm. waaw defar nga carrière ba mu rafet nga bëgg ko yàq pour koo xam ne mu ngi doog a ñëw jaru ko maire yi arrêté mais tamit gis nga jeeg ji ci seen jëmmi bopp ñoom it nga war a waxal parce que jeeg ji Euh, parce que fii suukaru koor yi yegg nii ñoo ko fa yóbbu. dëgg la moom. ñoom la de du keneen. Eh, des fois joxal sama yaay day am. waaw ah? ñoo léegi euh, am na am ñoo xam ne. joxal sama yaay joxal sama yaay jox ma ma jox sama yaay. waaw jox am soxna mu la jox ma ma jox sama yaay te yow amoo. waaw ah, na. am na am na kay boobu moom yabaata dëgg la jox ma ma jox sama yaay. boo ko joxul sax mu andi la problème guddi gi. yëfi dof yëfi dof yëfi dof. arrêté leen ma jox sama yaay. déet na fa naan non pour ñoo jox seen yaay suukaru koor waaw ne la jox ma ma jox sama yaay. waaw ah, ah non loolu defe naa nag. am na egg nañ fa. weesu nañ ah, ko sax ëpp na. <laughs> Ah, ah mais ëpp na c'est que nag may vraiment nag yéen nag war ngeen xoolaat suñu bopp ah. de dëgg la de ñu danoo danoo danoo day waar de ñi nag ñu sikk de saytaane nanu li lay xool ci jigéen ñëpp a ngi ci de am na protu fu ñu yem des bëgg nañ di tas pour mieux kii naan nii ak nii ak nii des fois nga ne sa ak lii fekk eh? amu ko li nu mel ñun ñoo ko mel de mais gis nga góor ñi buñ leen buñ yaay may sa jëkkër jàmm mais chaque jour boo ñëwee naan euh, yow jox ma lii Boubacar Samba jox ma lii Boubacar Samba bu yàggee Boubacar Samba boobu danaa waa mais kii man est-ce que man teg na ma nit. day énervé ah, mais bu dugg see bala moo commencé ah lii ak lii koor gi nii koor gi nii. jigéen dafa compliqué dañu mais ñun ñoo mel noonu. maanaam xam nga dañu naan jigéen dafa tuuti nit ñi waaw sax moom bi yegg xam na lu koy xaar maanaam mhm. jox ma nii des fois pression boobu noonu mun a doxloo nit laaj bi wax ñoom ñun dañoo am na lu mel dañoo am na lu mel xam a féministe mais am na ñoo xam ne bu dee sëy ñu ngi sëy te yàlla rek tax am ñoo xam ne dañuy def nii danga da nga leen di xool muy muy muy naka su noonu mais lépp ci jigéen la des fois macha allah macha allah su pertinente jërëjëf mm. kon nag ñun a suppi lañ waxoon rek waa góor bu amee jabar ju baax am yaay ju baax dara jomb ko kon nañ dimbale góor yi Souka Mbaye ma lay jox dig daje incha allah <laughs> ah maa ngi jégalu.